waxuñu nag study am na ñu bëri na ñu ngay wax ne eh, léegi ministre bi dañ aaye study loolu moom du dëgg kenn aayewul study liñ aaye mooy nga di oo xale ñoo leen study di leen feyeeku feyeeku boo xam ne ñoom amuñ ko nga leen di dàq tax sax ñu ñu leen ñu leen di dàq school loolu tax ñu aaye affaire study si school bi eh, so sorry aaye aaye feyeeku study si school bi waaye comme niñ ko waxee si télé bi waxaat nañ ko waxaat ko waxaat ko su fekkee ne kilifa yi gis nañ ne ñoom mun nañoo ah, doxal affaire study bi ñoom mun nañoo fayeeku wante jël seen xaalis dencal seen boppa sant tije yi ñu bëgg ñu study xale ñu study leen su time bi jotee ñu pour ñu fay leen kilifa yi seen boppam fayal leen seen boppa waaye bëgguñ benn xaalis buñ collègue headmaster bi di ko denca wala tije di ko denca si school bi façon boobu loolu dañ ko génnee complet léegi ay mengi nen ko ah, ila wato koma ka sutiya grade 9 koma ila wato anin gani be exam mota ka sutiya so fo nyin sino ban pour comme kodo nyim men nata comme ka at dota ka teacher jo pour study ka ke study fit ba director ajam men na ko haniya ta nola mo ako wala fan musa fo fana be kubal le kon men yalo men fanga ya tan comme nyin kodo nyin anata comme study fi ka joje at ben yo akonyin anyin fana fo ko e eh, nyin comme men fana ko kafo komin stodi manyana kala karam mo ako hani ako kuma manke toñade comme ana kenyalem ni fawal nin elifalsi si are eh, ku are ñano keno e study ke ya joy fayi ako e mambala mambalawal bar comme ka na komin dino nin ya study ke jo doliyajo dolmajo men majo e kolte stodi kala comme e mallafe walal so walati na saye ko ni study be kala fana elifal nin tonkol faŋol sa ka foñi oustas dukure farafeñe lo basic propa nkame ñirin ka ñin grand main al ka fo al sa asi keno je ustasolu min yalon ko eɓe karandiroya skulol to e textbookol e kame textbook ustasol man textbook soto ye men sototo walen sila bosde tol ka karandiro ke kunfele fanga ke fansum bukolu ñini e ka karandiro ke o bukol la fo bukol me kata e ka karandiro ke la fo ñin grants eh, ñin sono je jele pro o bukol me be solale la pour ke sanno o kodoto ba fandum bukol ñin be bolanan directeur le ya kabana education la karola pour o bukol e soto kar kabirin karandiro tol ya date kabirin sanji jelu bukol me ka karandiro ke la me sotono nka sila bos dam mala sore ka fal be karandiro kala tenne bara be kela bukol menna mawol bukol sotono fo si sotono nyin ko ko muna use pour jana textbook waye li nga li nga laaj sax mom dafa dafa dafa dina ci dafa dina passé lool tuuti parce que fu mu ne suñu la joxee syllabus nekkul ne bug bu la neex da nga dem jënd bug si curriculum euh, directrice bi ñoom ñoo war a toppatoo affaire textbook si nga xam ne moom lañ war a use si

Euh, programme bu nekk am na sarta yuñ ci teg sa laajte bi rafet na dinañ ci bàyyi xel waaye xaalis bii ñu jot a joxe du loolu xaalis bii ñu jot a joxe kayit yi ñuy yónnee ci school yi yëpp lañ lim ne moom nga ko war a jëndee loolu rek nga ko war a jëndee waaye li ci des dinañ ci bàyyi xel. comme ni ko directeur waxee curriculum department at the ministry of basic and secondary education ñoom loolu seen liggéey la dinañ ci waxtaan ak ñoom seet ni ñoo def pour jëndal leen bug yi nga xam ne moo dëppoo ak curriculum bi ak seen programme bi jërëjëf leer na oh. eh, ustaas o eh, ñi nen kaaro men ke yaa jaabil directeur yaa jaabil yo bari yoo ne mam tam ok aha mam tam siriya fana men laajiya ko kodo men naata ana sartol lema anata sartol men eh, kan o sarto wol dammala ñanta tamandi laato wolem commen kuwo ko naasi karaŋo samba ñaato yo bari commen ka textebookolu sandinniŋo le a ko mantara a saratol kono so bari commen eh, directo fana fa ñaameŋ commen eh, ye le baye ministre of basic eh, education ka ñoo moy le ɗo ba kuwo kacala le so ka je ko komin o ya ko nyin isa jar no nyamin Allah barka baka ah, dafa ah, ah, dafa am lu ma bëggoon a eh, mbir mi balaa ñoo balaa meeting bi waxon nañ si ben ne fo ngeen defar plan te ñi ko wara a moy headmaster bi ak SMC bi ñoo wara tok toog plan bi legi pour implement plan bi ci ngeen laaje laajee ñu jox leen ok fu mu nekk ni ma ngi fàttali ko xam ne kii nii ba tey euh, euh, am euh, nekkula sa implementation bi mu ngi yéex nga yokk ko parce que li des si temps bi bëriwul te wax naa ne xaalis bi balaa balaa temps bi di jeex school yëpp dañu war a spend seen xaalis bi di implement seen plan yi léegi nag benn affaire rek laa leen bëggoon a fàttaleel defar plan bi jël xaalis feere ko emut foofu de dina suñ demee ba ci kanam dina am ñoo xam ne dina ñëw seet impact bi bi bi school euh, improvement grant bi am ci éducation euh, li waaw li ma euh, njëriñ bi mu am fum mu nekk nii am ay auditeurs yoo xam ne dañoo ñëw round ci school yëpp pour seet ko auditeurs yi bu ñëwee dañoo seet kayit yi nga xam ne moom la ñoo defar pour mun spend xaalis bi ndax yooyu mu ngi correct wala déet waaye duñ em foofu dinañ dem si school bi si school si seet li nga xam ne euh, lañ jëloon xaalis pour spend for on ndax loolu euh, génne na euh, make na any difference wane na gis nañ ci njëriñ foog rek school si fu mu ne dañ war a xam ne ah kayit na kayit auditeurs bu ñëwee dañoo seet kayit man xam naa ne ku ñëw fu balaa ngaa spend xaalis kayit yëpp dinaa am correct na waaye amul bu leen foog ne su foofu su loolu amee rek jeex na déedéet nañ seen ndax ni ngeen feere yéen a waxoon ne bi ngeen a defar plan bi ne suñ defee xa dugalee xaalis bi fii dina dina nekk njëriñ njà njàng mi loolu foog ñu seetaat ko foog ñu auditeurs yi seet ne ndax loolu am na wala déet soo su fekkee ne nag ah, da ngeen feere xaalis bi te gisuñ njëriñ bu ngeen doon wax noonu ah boobu de boobu de beneen affaire la moom soo loolu laa leen bëggoon nga fà eh, bëggoon a rek yéen ñi nga xam ne yéenay defar plan yéen ñi ko implement ngeen make sure ne daal ku fi ñëw pour seet seen implementation bi dina gis positive impact bu euh, school grant bi am on on education. Well, that's it on this particular episode of the regional Bantaba on education and about the school improvement grant. Well, we hope to bring you more episodes on the grant as we travel to other regions in the interior Gambia. I'm your presenter, Louis Mendy, and Mam Tam of the ministry is my co-presenter. Thank you. Bye bye.